lii rek mooy problème bi. soit démocrate Barth eh, eh, Bougane mi ngi noonu dañuy ñëw ci eh, leneen ak Thion ñu gis plainte bi nga xam ne avocat bu. Euh, Euh, ki nga xam ne moo représenté waa Pastef def na ko mais Mansour Faye euh, la ko jébal Bougane Gueye Dany ak euh, Barthélémy Dias mu mel ni leader yi la ñu porté plainte naan sax ñenn ci ay ñi nga xam ne ñoo yoroon sécurité bi ñoom commencé nañ leen di leen teg loxo waaye ñoom responsabilité yi peut-être dañ ko jubal ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy di leader yi. waaw foofu la coow bi nekkee déjà Sonko bu muy wax barki démb. Mm-hmm. daf ne dafa yéex boo porté plainte kay candidat dina yéex. Mm-hmm. ah looy def li ñu tuddee euh, code électoral bi wax ne mënoo topp candidat mënoo ko arrêté mënoo ko déglu. loo koy mm-hmm. def da koy violé cest di dire boo ko toppee aussi da ngay xaar élection jàll campagne bi jàll. léegi nag boo toppee garde bi corps mën nga ko mën nañ ko déglu tout de suite s'il le faut bu dee moo def ñu jàpp ko. waaye léegi soo toppee cuun cuun mii candidat la te lu yoon ne candidat bi mënoo ko pour poursuivre waaye léegi noo bëggee mu gaaw ñu ñu déglu ko alors que yoon ne na déedéet mënoo ko pour mënoo ko topp. te bi nag. ah x bi léegi x bi x bi aussi bu dee x bi xam nga x bi mooy xamuloo. léegi ah léegi bu dee xamuloo léegi boo demee ma gis nga def enquête ba xam ne x bi ki diw la te diw candidat looy def da ngay taxaw. ah nga taxaw waaw léegi nag léegi moo tax léegi ñi bëgg mu gaaw bu fekkee da nga porte plainte candidat loolu mënul gaaw saa mhm. ñaar yi àndul parce que dañ ne ne candidat bi waxuñ la kenn mënu ko topp mhm. waaye diir bi campagne bi période bi mhm. dafa am immunité boo xamante ni pour nga mën nga ko topp de mais après campagne bi waaw léegi boo ko bëggee mu gaaw avant campagne bi après avant l' élection comment c' est possible nekk sa à aussi foo ko que xam ñun lan lañ bëgg c'est-à-dire que nga mu gaaw mais loo bëgg mu gaaw xanaa kii toppaate moom di viole yoon puisque daa bëgg dëgg léegi day obligé xaar bu xaaree nag bu jàllee ñooñu ñëpp mën nañ leen déglu ñi nga xamante ne dañuy dañuy nekk ay agent wala ñu jàpp ne bokk nañ ci biir te du ñu ay candidat mhm. ñoom bu leen neexee tout de suite mën na leen déglu suba walla ginnaaw suba loolu du problème amul benn contrainte amul benn entrave amul dara lu leen di yàqal mhm. mais quant à quant moom soxna si mooy da ngaa bëggee appliquer lu yoon wax rek mënoo déglu mënoo leen topp plutôt. période parce que ça c' est très c' est prescrit mënoo leen topp. léegi boo bëggee lu gaaw nag man xamul loo bëgg kon su boobaa kon dañuy violer loolu après ñu toppale xanaa loolu mun loolu kay toppal ministre Macky Sall sans haute cour de justice bu dee loolu la. ah mhm. logiquement léegi nag euh, plainte moom képp kuñ ko visé yaa defu la defuloo dinañ la dinañ la déglu. Mhm. léegi reste à voir maintenant ki la déglu est ce que am na li war a tax mu wax li yow loolu di yow. Mhm. voilà euh, ak li nga xamante ne ni Sawolof moom la ñu def ci plainte bi parce que ñu ngi leen di toppee mbirum association de malfaiteurs destruction de biens appartenant à autrui coups et blessures euh, coups et blessures volontaires violence et voies de fait tentative de meurtre de meurtre vol acte de torture menace de mort complicité euh, de ces euh, chefs mu mel ni euh, loolu moom la ñuy toppee ñi ñu def ci plainte bi mu di rek ki nga xam ne wax naa ko tout à l'heure Bougane Gueye Dany Pape Djibril Fall Mansour Faye mais également Assane Diouf. waaw loolu yëpp am na solo xam naa ma ma jaajëfal Ibrahima Sori Balde di ko wax que ne ko combat li muy wax. gars yi ñu ngi ci muy suñu accord yeeg contrat yi baaxul yëpp union européenne rek démb maa ngi sukkandiku ci Guy Marius Sagna ñoom ñu ngi gaawantu di wax ne du ñu renouveler waat seen accord yi doxoon mm. euh, seen digganteeg Sénégal mu ne nee na ñoo yeeyaay waaye loolu yëpp fulla gi suñu ay autorité am moo tax parce que mooy xam ne lii du am ngay taxaw di wax pour bëgg ku la bañ ku la ku la ko bañal ak yooyu loolu kon day wane ne ñun ñu ngi ci bii ñu ngi ci bii fépp lu Golbert Diagne waxoon dem si yàlla si rek waaye ne kuy dóor moo man kuy saaga mu ne kuy dóor di saaga moo man ñëpp alors que kon Ousmane moo man ñëpp jaajëf loolu nga wax nag faatu comme damay wax sama xarit tuun ma ñëw ne Fatou Fatou nekk sama soxna ma xëy jox ko dépense <laughs> maanaam man huit heures laa ko jox waaye añ man xam naa ne man mën naa xaar midi. waaye bu ma ko teelee jox dépense bi. kon dana ko teel a yàq ba midi jotee. Mm-hmm. maanaam tey bu ma négoon moo gën ma négoon ba dix heures. Mm. léegi nekk ba dix heures mooy nga bàyyi ba affaire yàpp xaj bu seddee soof di ciun mm. maanaam fi mbir mi safe nga xam ne metti na la deret ji nangam nangam lépp xew gis nga réaction yi yëpp di am. fa ngay demee ànd ak tamit li nga xam ne moom moo naqari euh, Sonko naqari sénégale yëpp bañ taxaw foofu la ko maître Abdou Nar avocat kile xam na li ngay wax. xam na ne candidat yi soo demee ca code électoral 117 lii la wax waaye bu ñu joxee dépasse bi fajar wala ca guddi ga sax avant ñuy ñuy ñuy ñuy xëy kon loolu li muy tekki mooy ah bu mbir yi jógee fii ba ñuy pare ci lii li leen yiiroon yiiratu leen waaye waay waaye bu boobaa nag lu mu gën a gaaw ma xeeb loolu la rek. Hmm. mais du ay naan nangam pour mu gaaw mu gaaw mooy buñ jógee ci na gaaw rek. Hmm. këñ ci war a topp comme noonu ko waxee ñu dem ci boobu nag muy comme li waa ji wax. Hmm. Mansour fay ni ko sama sëriñ bi waxee sànq rek ne dañ doon kar be euh, kii nàngam ak nangam gis nga sénégalais yi bu fekkee ne dañoo yaakaar ne dañoo dof ñoom ñoo dof sénégalais yi wuti luñ leen di faje bu fekkee ne bi xam nga dafa am ay video yu illustré moo tax Assane Diouf bu reenaa ba sonn seetal na boppam fu nekk jaar da fu nekk nee na daal moom ay flyers la doon joxe kon gars yi bu leen tooñ Assane Diouf Assane Diouf nee na comme boole ngeen ko ci kii bi bi affaire moom mi doon gëree gëree lu nekk Amérique di xorom ñëwaat de bëgg xorom wala di junj xorom nee na ay flyers la doon joxe bi mu duggee ci biir nee na boo tooñee góor yàlla nag mu ñëw di la sifaay man Assane Diouf atte rek laa mën a def kon Assane da doon àtte maître Abdoul génneel Assane ci ci plainte bi Assane Diouf da doon àtte comme wan nañu ne da doon àtte xam nga mooy li ma wax démb bi ma faatu di wax que ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon fi militant ma ne ko non dafa am vidéo bu wane Assane Diouf ànd ak ci garde corps ñuy def lii ci kon xam nga loolu kon dafa fis mooy caméra yi dañu génne lépp génne ay nit nga fekk gis nga même bu doon gis nga dafa foofu nag maa ngi wax sama bokki garde corps gis nga lii li xew ni candidat ñoom mënuñ leen a téye mais yow téye nañ la taxawal ne la xaaral donte ne metti na ci candidat yi parce que ku bëriwuti nit. Mhm. ñu jël lu métti soixante onze personnes soixante dix sept personnes day wàññi nit ñi. mais deful bi nga xawoon a xalaat am sax comme bëri nit amoon nit ñu la topp daf koy wàññi waaye garde corps yi nañu xam ne duñu ay militant saa su nekk dama koy misaal ci Pastef gi ma bokk muy ñoom mëma sax bu ñu jëndee carte Pastef moment bu ñu àndee convoi bi nekkatuñu ay militant ay protection rapproché lañ ay wattukatu kaaraange wattukatu kaaraange nag day wattu kaaraange gi mën a ñàkk kaaraange gi mën a tukkandoo ci biir foule bi parce que boo àndee ki militant ñu xaañ koo xaañ su koo kuy fayu moom bu waafee sa baay lay dal moo tax garde corps war a xam li ko tax a jóg gis nga même bu nit doon ñëw di envahir sa fenn wala di jéem a euh, bunduxataal sa VIP gis nga boo ko neutraliser ray jéggi la danga ko fay bàyyi bul lijjantee moom bul xeex bul def dara li nga soxla mooy bu kenn lor sa VIP loolu norme yooyu gis nga yooyu règle yooyu dañ la koy teel jàngal hmm. maanaam ñëw nga ay nit bëgg comme ni mu ko waxee ma ànd ak Mansour fay nangul ko ne ko am na ay militant Pastef yoo xam ne dañoo taxawoon di kar seen caravane léegi garde corps yi jóg leen xool garde corps Sonko yi bi ñu demee Agnam bi amee ñuy leen yu nga xam ay yare nix lañ fàq noqi gone lañ leen noq dañ leen a duuti biñ dawee dañoo ñëwaat continuer li ñu doon def continuer seen campagne comme si de rien loolu mooy rôlu garde corps gis nga boo demee neutrale bul ci jeg ci fenn wala yi def parce que moment bi muy lay laal jege yow foofu ngay def li ngay def parce que nekkoo fa pour dikki parce que boo ko kii ba mu dugg ci biir du digga nga fekk ko fa caméra yi loolu lañ wane mm. kon même bu fekkoon dafa amoon ñu ñëw di leen ruube su ngeen leen kii kiyee nañ toog fee taxaw wax saaga yow woo deru euh, réputation waa ji kooram ngay garde ki koy taxaw di ko sonkoriser waaw mais bu ko soog boo ko mënta muñ nekk barteriser ko xam nga kon kooku yow wattuwoo ay ay ay ay éléments sonores yuy taxaw parce que loolu rayu ko gaañu ko yow li la soxal mooy VIP yi nga àndal mooy kaaraange kon bu ñu defoon seen rôle en tant que protection rapprochée problème du am te maa ngi waxaat fii ne. garde corps Anta Babacar yi même bu dee am na plainte bu contre Anta Babacar mais mm-hmm. ba ma dajee ñoom li ma gis ci ñoom dama leen koy seedeel fii parce que du ma naaw feex même bu ma gars yi naan ma ay Anta man Anta am na jëkkër Anta xaj na ku ma rakk jalaa bëgg mu may ma xaj na mais Anta yàlla dogal ma la ma ko estimé nag macha allah mais ay garde corps am professionnalisme laa gis ci ñoom biñ dajee dañu dem man maa dem ba fekki leen gis ne ñoom la ma ñëwaat indi information ne leen Anta Babacar suñu ay garde corps biñ dajee dañ doon saafante anta saafante ak leader bi ñu àndaloon jàmm am fa kon ba mu demee njaareem ba ñu leen di porter plainte dama ne soit mu ànd ak yeneen garde waaye gëw ma ne garde corps personnel boppam la gëw ma nag laa wax waaye àndandoo day wàlle mm. te bu ñu àndee foofu coalition ba la est-ce que kon du ñeneen ñi ñoo ruubee ñu teg leen man moo tax fii deru Anta bi dinaa ko euh, sàmm ba keroog may gis lu mu lu ma prouvé ne moom moo def. voilà. ah déedéet Anta ak ñëpp bi ah, ah, ah, damaa non non non yooyu garaaw yooyu garaaw non non bàyyi ma damay dox ngoro ci kumba kumba <laughs> kumba laa bëgg mu jox. léegi booy dox ngoro doo wax loo gis. kumba laa. <laughs> kon xam nga doy arnaque non non damay toog non jàpp ne lan moo waral plainte bi. bu fekkee dañ def plainte visé ko ay leader politique aussi. xam nga dafa jaar dañuy wax ne ay vidéo mu ngi génne ay nit yoo xamante ne ni ñoom ñoo doon def loolu. dëgg la parce que réew mi nekk.